asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 30 mars 2020 ñoo ak yéen ci yëglikaay yi tey fa nuy xëy doo rek muy yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu lamb yëglikaay bi nag tey Pikine la xëy dalal waa Pikine séq ak ñoom ay wax ka njëkk mooy bàcc seeraas ma nga xam ne mooy boroom ragal du jéggi raay moo ngar daajoo yëglikaay ba tey ka nga xam ne nii moo di mag tamit wax na muy àlliw ba soqitam xëy na wax bàcc nag la mu xëy di wax moom maanaam yuuxu la def di wax daal aw mettitam ak abandonné boo xam ne daal daf nañ ko ko waaye yemu ca de nee na mbër yi nga xam ne moo ñoom ñoo ñoo bokk génération daal dañ leen a génn ci lamb ji wala boog ñu bëgg leen caa génne am na leen loo xam ne tamit naqari na ko ba mu wax ko mooy jàpp nga nga xam ne jàpp nañ ko ko tëj ko ci prison bi te nee na la tax ñu def ko ba tey nii waxee su ko ko xaan daal fekk ko jàpp ko tëj ko xëy a xëy libéré ko te waxu kenn waxu ko ko bàcc lii nga def la leen nga li nga def daa tooy wala dafa wow bàcc ne na lii jaaxal na ko roi des arènes ak Eumeu Sène na ca diggante Ama ak Modou Lo itam wax na ca jàpp la cay xew daal yàllaa ko xam bari na lu baree bari loo xam ne daal bàcc seras xëy na tey yëglikaay bii di sunu làmb mag ja Aliou ba la mu xëy di naqarlu mooy radiation wu Sitor Ndour ak arbitre ya ñu aj ne na daal loolu moom sanction daa jàpp ne sax lool du normal keneen koo xam ne moom bëre la doon a def diggante ma gàmmu gi muy soq soq dëkk Pikine xëy na tey wax ñu ne ko la nga dépensé mënu koo calculer ndax nag danaan dépassé te du moo tax ba nga xam ne daal pour mu wax ne ñaata la ci jot a ci préparation bi dana ko jafe waaye leneen loo xam ne tamit wax na ko ne na heure bu gàmmu gi ñëwee moom man soq pare naa ngir jàmm jàmmaarloo ak moom muy guddi muy bëccëg muy taw ma muy naaj buy ñëwee rek danañ defante ba mu saf saf ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi keneen koo xam ne moom boo bëggee dëgg-dëgg jafe-jafe yi mu nekkee daa mel ni doomi Pikine ko ko yóbbe muy ki nga xam ne moo di Baara Ndiaye Baara Ndiaye li leer ba leer fi mu nekk nii daal daa mel ni mu ngi ci mbedd yi di taxawaalu maanaam daal combat moo koy të ñaari at yoo xam ne def na ko année balance te buñ sàgganee mu ñett la ko ko yóbbee nag yëglikaay bi ne na ba mu daanoo ci diggante mag ki nga xam ne moo di li magi soq ba tey combat mu ngi ko të tij moom Baara Ndiaye bu faas bi xëy ñu ko ci gëstu Boubacar Niang keneen koo xam ne nii moom moo séq moom ay wax a ci a yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu lamb bu nu continuer ba tey mu mel ni ki ci yëglikaay boobu nga xam ne moo di sunu lamb itam itam jeneen doomi Pikine joo xam ne booy fay lan koy wax moom daal fi mu na muy entraîné daa mel ni fi xool na ko la ko ko yóbbee nag mooy li xam ne na nag ci ka nga xam ne nii mooy lagros bu faas mel ni ki nag moom fi mu nekk nii day daa yëg-yëgu ñëwaat ci lamb mu ngay lu wóore wóor mel ni ki daal kon moom doon tey blessure génne woon na ko ci lamb ji mu waaj ngir ñëwaat leneen loo xam ne tamit wala keneen koo xam ne moom jàppal mu ngoon États-Unis bëgg ñëw mu të daa mel ni ki nag fi mu nekki ni est-ce que ñëwul ci réew mi mu Yékini senior record a xëy ñëw tey wax nu lu mel ne ki noonu waaye li leer ba leer nag jàppal fa nga xam ne mooy ca Niger moom coupe président ba reporté nañ ko waaye yi nga xam ne tamit fii ci Sénégal ñoor lamb ji muy waa CNG moom réunion yi daan def moom aj nan ko la ko waral mooy coronavirus bi mel ne ki nag coronavirus boobu moom am na koo xam ne mu ngi ca Leewtoo TV muy Youssou Ndoye génne na fa ab ceeb bu baree baree bari saaboog diwli nag lu ñuy raxas ay loxo ay millions yu bari xam ne rom na fukki million daal moom la jël fas ko jox nag néew gi doole yi dimbaleeku ñi ci li nga xam ne mooy covid 19 bi nga xam ne moo attaqué doomu aadama yi Youssou Ndoye di basketteur mu nga fa nga xam ne mooy ca Leewtoo TV dañ fay jóge continuer dem ci yëglekaay bi nga xam ne moo di record record nag moom ka mu xëy gëstul ñu ko mooy ki nga xam ne nii moo di franc franc daal ni leer ba leer yëglekaay bi ne boo xoolee juróom-ñeenti at wala boog juróom-ñetti at la def ci làmb ji waaye mu ngi ci neuf combat yoo xam ne am na ca neuf victoire mu at mu jot mu ne Franc dana bëre benn combat sax ak xaaj bu la neexee ndax li leer ba leer moom année balance defagu ko ko kaar kaar macha allah yëglikaay ba xëy tey ñëw wax nu ko mel ni ki Franc daal fi mu nekk nii sunu làmb ne na la muy def moom boo xoolee muy ki nga xam ne nii moo di Balla Gaye mu la muy Eumeu Sène wala Gris Gris Bordeaux wala Tapha Tine ñoom Tapha Gueye ku ci nekk daal li Franc def sa carrière ba nga débuté defoo ko maanaam teglante juróom-ñetti combat yépp nga cay am ndam yëglikaay bi xëy ñëw tey andil ñu gone ak parcelle gi mu mel daal la mu jàpp mooy am na benn étoile wala biddiw boo xam ne daal fekk na parcelle boo xam ne nii rek xale bu jara bàyyi xel la mooy Franc yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw wax nu ko ak carrière boo xam ne risque na lool lit simple ba tamit mu ngi cay wane boppam bu baax a baax te defet boo gëjee boo bëggee dégg-dégg moom gëj na ko caa am ay weer a ngi wala yoo xam ne daal gisuñu Franc foo xam ne nii boog daanoo na fa wala boog bi mu mujjee daanu kay ka ko daan mooy Serigne Ndiaye numéro 2 fa nga xam ne nii mooy ca ñaaxar waaye lu jiitu loolu moom pour ñu ne la Franc daanoon jafe woon na trop trop boo bëggee dégg-dégg tamit yëglikaay bi ñëw na ci 2017 2018 Fana nekk na champion du Sénégal nekk na tamit champion wala boog nekk na tamit champion la CEDEAO ak tamit meilleur lutteur ANPS mel ni kon daal Fran mu ngi wane boppam bu baax a baax a baax record a xëy ñëw tey gëstul ñu ko ci gëstoob ka nga xam ne nii mooy Abou Ndour tey bu ñu continuer ci record record itam ñëw na ci saison bi nga xam ne ni moom lañ commencé woon te mu taxaw li leer ba leer nag lamsaar la xëy jàpp na ne daal mbër ya fa ne di ay mbër yu mag moom fi mu nekk nii bu ñu seen xal nañ ko dalal ndax nag am na fa ay xale yoo xam ne day ñu ngay wane seen bopp te daa mel ni nar nañoo assuré la nga xam ne nii mooy écrit ba yëglikaay bi ne na six victoire la ñu ak benn défaite boo xoolee moo tax nag yëglikaay bi jàpp na ne quatre-vingt-cinq pour cent de réussite daal lamsaar taxaw na ca bi saison bi ubbee ak léegi ay xale yoo xam ne ñoom Mama Lamine ñoom ka nga xam ne nii ñooy fils de Max ak Max Mbargane 2 ak ñoom Abou Niass ak ñoom Caatu Fora daal ñu ngay wanee lu leer a leer moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal c'est taag waa lamsaar ak ñoom fëgal ak ñoom nees daal bu ñu yeboo dalal seenam xel de ndax nañ am na ndax nag am nañu relève bu wóor a wóor a wóor yëglikaay bi xëy tey ñëw wax nu ko bu ba tey dafay fekk Doudou Diagne Diecko moom tamit daal mu ngay wax ci diggante arbitre yi ak CNG waaye yemu ci ñëw na ci corona bi di sensibiliser nit ña moom Doudou Diagne président des amateurs waaye da caa yemul de mu ngay wax tamit président Macky ne ko donte dalal nga ñëpp jàppal ne promoteur u yi tamit ci réew mi lañu bokkat te ay maanaam ñuy développé dëkk bi lañu ci wàllum liggéey ba ñu ne kon tamit yoon la nga dalal leen mbirum lig Nicolas tamit ñambaas laa ne boole na ko a bi te la ko indi mooy coronavirus bi mu mel ni kon coronavirus boobu daal fi nekk nii yëngal na àddina bi nuy ñaan yàlla rek yàlla na ko fi yàlla yemale yàlla na ko fi yàlla yemale ci barke nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñi suivre ci Leewtoo TV nuyu nañ leen ziar leen tey nag ni ngeen ko xamee ginnaaw bi ñu defee bi ñu leen jàngalee seen revue de ba pare di lundi 30 mars xam nga ah ñu leen di nuyu ko ci naqari ak lim ci ñàkk ci xaalis jàppal bàyyi ak yooyu am mel ni ki nag kon bàcc daa ni carrière metti na trop waaw waaw metti na trop mu nekk mbër mi nga xam ne wax dëgg yàlla na ba ne bàcc xajatul Iba Mar ñu bu ko Demba Diop saa yu jógee Demba Diop fees dell muy mbër moo xam ne tey yaakaar naa ne war na mën a ñëwaat ci làmb bokk ci parce que li tax mooy carrière jeexagul te itam bëri woon nañu ko doon bëggee yaakaar naa bokk na tey Pikine ga mu dëkk mbër yoo xam ne tey moo leen inspiré yaa ngi dégg wala sax si banlieue bi par rapport rapport ak ni mu doon bëreem fitam faydaam ak jomam ak tamit mënoon bëreem te taxul woon ñu mu rëy nekkul ku rëy kuñ naan bàccangee ponkal la wala njool na mais amoon na xarañte xarañtee fu bëri amoon tamit xam-xam bi te daan na ko teg tamit ci aw yoon mu mel ni wax na lu lu ko naqari mu mel ni kon tey ku dem sunu làmb daal daa fa gis waxi bàcc serax ju yaatoo yaatu am tamit di ki nga xam ne mooy Aliou Ba tamit gis nañ ko ci journal bi di sunu làmb moom tamit wax na fa ci wàllum radiation ne du lu tege ci aw yoon wala waru woon demee noonu muy lu doy doy waar loolu nag defe naa bañ ci wax ak yaa ngi dégg keneen koo xam tamit Pikine la dëkk muy soq nee moom mënul calculer li mu def ci diggante ak gàmm gi parce que da daan génne te du calculer waa xaaj nag buy génne doo calculer moom pour nga neen somme bi nii la toll dana jafe waaye la ci mën a dégg daal ñëw moo ñëw rek moo tax mbir yi demee noonu waaye ci kàttu yàlla am nañu yàqin ne yàlla dina ko teggi ba ñoom ñaar ñu jaamarlowaat ak yeneen combat yi des yëpp waaw buñ fa continuer tamit ba mu gëjee bëreeg léegi année blanche ak defet bi mu mujj diggante ak jet li mu mel ni tamit loolu doy doy waar la wax mu mel ni kon daal moom xam naa fi mu nekk nii soxla na combat pour bare record moom fa mu xëy dem fenn la maanaam dafa xëy dugg ci ki nga xam ne nii moom moo di boo bëggee dëgg-dëgg daal ñëw na ci franc ak li nga xam ne nii mooy carrière am ni mu ko débuté léegi def ci làmb ji presque boo xoolee neuf ans wala huit ans boog de carrière tey mu mel ni kon boo xoolee at mu jot mu ngi bëre defagul année balance di am ay ndam muy xale boo xam ne bu jara a bàyyi xel la moo tax yëglikaay bi ne biddi bu fekkaat la fa ne mooy parcelle ginnaaw boo fa déggee ñoom Papa Sow ak ñoom Moussa Dioum ak ne mooy roi des arènes bi di Modou Lo kon am na benn xale boo xam ne ñëwaat na biir parcelle te muy ko jar a bàyyi xel muy Émile François Gomis tey Lamsaar itam record dem na fa gëstu kani kat bi saison bi ubbeeg léegi soo xoolee li am solo mooy kani seeni combat benn lañ ci ñàkk boo xoolee yëglikaay bi loolu la ñu wax moom record combat yi des yëpp gagné nañ ko mu six combat mel ni kon comme jàpp na ne xale ya fa ne wala mag ña fa nekk tey muy ñoom nees ak fëgala ak Tidiane Faye ak ñu mel ni ki noonu am nañu relève bu wóor muy ñoom Mama Lami ñoom Abou Niasse ñoom Thiatou Fora ak ñooñu mel ni ki tamit écrit looloo tax ñu koy parce que mënee su fa nekk éternellement di nekk mbër ngay bëre jeexal sa karit say xel say rakk kon daa mel ni kon Lamsaar daal liggéey bi ñuy liggéey mu ngi feeñ ndax liggéey moom bu dee bu mag ñi réussir xale yi nekk ci yoonu réussite ko moo lay wan ne liggéey ba mu ngay feeñ ñu félicité président écrit ba muy Cheikh Niang ak Euh, seen entraîneur Père Aline Diop ak tamit directeur technique ba Max Mbargane ñu leen di nuyu bu baax baax di nuyu supporteru Lamsaar yëpp mais di nuyu supporteru wàll nañ làmb yëpp di ñaanal ñëpp jàmm daal wax que ni du jaañ gis nañ ko tamit ca Leewtoo TV wax na fa ci lu yi ñu war a ci lu yaatoo ca Leewtoo TV booba gis nañ fa Youssou Ndoye tamit ak don yu ama am solo yoo xam ne génne na ko jëmale ko ci ñi nga xam nañ ko képp ku seetaan vidéo bi daal ñaanal nga ko rafetlu nga ko man tamit ma koy ñaanalat encore une fois comme ñu ko ñëpp ñaanale yàlla defal ko gudd fan ak wér gu yaayam maa ngi koy bu baax baax mère Penda Diawar ak magam Mami Ndoy wax ne que daal ay mbokkam tamit vraiment buñ nekkoon ñu fukkule xëy na loolu du demee noonu yaa ngi dégg dañ koy akimoo mais pourtant dañ ko ci gunge ànd ceeg moom encouragé ko digal ko mu def ko muy loo xam ne nag yàgg na ko def ndax am na ci loo xam ne wolof da koy wax xare ka ko téye ko mën a nettali am nettali am na ci boo xam ne man ak moom ñoo ànd bés boobu ba géej waaye dem ci daara mu yëkkati dund bu baree baree bari jox leen ko mu Youssou Ndoye l'international sénégalais de basket di ñaan daal yàlla defal ko kàttan defal ko bépp doomu aadama ndax mbaax moom rek mooy li nga xam ne ni moo war doomu aadama bu mu mën a doon ci sa alal sa doole sa xel ak sa lépp fu ne mën nga faa defee mbaax tàggutoo di nuyu ñëpp di ñëpp jàmm di wax ne que rek corona bi moo obligé ñu ñaan yàlla mu jóge fi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que tamit àddina ah yàlla mooy indi dogalam ak i li ko neex xëy na moo ñu yóbbee lii maay nag liñ ci war a def mooy jàngat ci lu bare bare bare rek di jéggalante di jëlalante di suturaalante mayante jàmm te itam ku ne li ngi ne sa bopp ngeen ne ko sa morom loolu daal defe naa dina am solo trop di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne que Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam